auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mettit lool ci accident yi nga xamante ne nii daa bari te xam ne lépp ànd ak ndogalul yàlla waaye ñu fas yéene ci indi ay muslaay yoo xamante ni nii képp ku ko ci def insha allahu rabbi oto boo yéeg mbaa avion boo yéeg wala sareet boo yéeg dinga ci wàcc ak jàmm képp koo xamante ne nii yaa ngi koy def bu soobee yàlla sunu borom dana la musal ci accident mooy heure boo yéegee oto mbaa avion wala lu mu mën a doon rek waruwaay boo mën a yéeg nga def ina anzalnaahu ñeenti yoon ñetti yoon ñetti ina anzalnaahu heure boo taree nga tifli ci sa kanam incha allahu rabbi oto boobu di nga ko yéeg di nga ko wàcc bi ci des tamit mooy fatiha fatihatul kitab mooy bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin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 wa taqdi lana biha bi xaajaati ba mu ba salaatu ga jeex moom it képp ku ko mën nga tari ko juróom-ñaari yoon loo yéeg insha allahu rabbi di nga ko wàcceeg jàmm ndax accident yi bari na te ku mus ku mucc rek yàlla la musal kon nañu wëlbati ko di ñaan yàlla ak mucc képp koo xamante ne jot na ci vidéo yi na ko partagé ba ñëpp jot